waaw salaamaaleykum euh, donc maa ngi nuyu ñëpp euh, tey nag euh, message bi nga xam ni moom laay lancé dama koy lancé le monde de la culture rawatina nag waa SODAV parce que boo xoolee depuis un moment ñun daanuñ génn di critiquer gestion yi di wax daal ci ni nga xam ni moom la ñuy gérer la SODAV mais tey gis nañ ni bi mbas mi amee ñoom tey jii def nañ benn effort mooy tey génn nañ wane ni ñoom tey liñ leen denk fi ñu leen jox ñu ngi wane ni ñu ngi wane transparence voilà tey au moins bi ñu mujjee def répartition léegi ñëpp xam ne ni yàggul mais ci diggante bi li nga xam ni moom la ñu jot a yi ñu yi ñu mujjee def gis naa ni góor góorgóorlu nañ ba génne lu toll ci cent vingt cent vingt millions de francs pour euh, jàppale ko artistes yi nga xam ni tey jii euh, mbas mi def leen a sonal parce que boo xoolee les artistes guddi lañ daan liggéey ñu ci bëri seen spectacle yu bëri dafa arrêté te doo xoolee tamit la SODAV ci yenn hôtel yi ak yenn restaurant yi ci lañ doon dem di def ay execution boo xoolee maa ngi koy wax temps yëpp maa ngi wax ni bien vrai que ni man ak ñoom neexuwuñu mais tey jii ñëpp gis nañ nii def nañ effort. parce que tey jii exécution amul mais au moins li nga xam ne nekkoon na fi jël nañ ko di si jàppale musiciens yi ma bëgg na képp koo xam ne am nga carte droit d'auteur wala nga déposé woon sa carte te génnagul su fekkee yaa ngi dakaar nga jéem a rapproché wu parce que ndimbal nga dem nga jël ko beneen bi ci topp mooy ñi nga xam ne tamit ils sont dans les régions su fekkee ni waa SODAV war nañ am benn opportunité parce que si yaakaar naa ci ci ci kii bi ma lire euh, message bi ma gis ñoom ñu véhiculer ko mooy euh, ku ñu am sa répertoire peut-être euh, par mën nañ la ko yónnee daal par Orange Money wala yu mel noonu donc nag ñoo ngi profité ci occasion bi di wane ne rek nii. ñun li ñu soxla rek mooy transparence te gis nañ ni tey jii nit ki bu fekkee da nga koy critiquer mu góor góorlu su góorgóorloo da nga koy wax donc jàpp naa ni ay jàmbaar lañu pour le moment donc ñoo leen di féliciter loolu di wax ni artistes yi tamit euh, ñu ñaan ñun ñëpp euh, mbas mi nga xam ni moo dal réew mi yàlla dimbali ñu mu gaaw jóge fi merci beaucoup.